at tihaami yi mooy kojug makka waaye mboolem jasiratul xarab yépp su ko defee hijaas dugg ba atraful yaman ak gox goxaani makka madina yépp mboolem doj yi nga xam ne nekk nañ fa te ndox wër leen ni nga xam ne montagne makk yi ak montagne hijaas yi ba ci baxrul hindi barab yooyu yépp la wër mooy ndox kooku la wax kojug tihaam wasalim yàlla nga salman ali ci moom waala ali ak ñoña wa sama bi ak saabaam yëpp wamhu yàlla na nga fare jami asan bi mboolem sama bakar bi jaay yi ci darajaam ja alkamaali darajaam ja nga xamee ne mooy kojug mat mooy aji mat rek mu ne yow sunu borom yàlla na nga sax dàkk di ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku la ñoo attihaam bu ñu waxee attihaam kooku mansubu ila tihaamati wa hiya makkatun aw bilaadu sarqil hijaas ila janoob tur la rek ci turu mu mukarama yi waaye buñ ko waxee dañ ci namu mboolem réewum hijaas ci sarqu beeg simal beeg càmmooy bépp ndax lu tax ñu tuddee ko ko gis nga yi fa nekk bokk nag montagne yi nga xamee ne xeer yu dëgër lañuy doon te xonq déedéet moom la fay nekk mooy suuf su xonq cur ñu koy wax joor moo tax buñ ne suxóoli tixaama rek mooy suuf su jor sa suuf saa nooy su ko defee nag barab yooyu yëpp ñi koy wax si fi jasiratul arabiya nga xam ne biñ ñu ko waxee jubluñ ci Makka waaye loolu lépp ca la bokk ba Yaman ba Hijaas yëpp ca la bokk tabarakallahu a ñi koy tuddee nag baatab tihaam atihaamatu borom xam-xam yi wax nañ ci lu ne waaye li wér daal ce dëgg-dëgg tuur la rek ci tuuru Makkatul Mukarrama yi ni ngay déggee ñi naan yonent bi mooy yonentu Quraysin mooy nabiyul Quraysin wala mooy nabiyul abtahiyu wala mooy nabiyul makkiyu wala mooy nabiyul madaniya nga xam ne yooyu yëpp sax da nga ko jot ci biir xasida gi rek lamel mel ba tey dafa bokk ci turam yi mooy nabiyul attihaamiyu maanaam bi kasrati taa yi. lu mel ni boo demee ba ca Hammaan nga xam ne madinatu Saam la léegi nag ci dëgg-dëgg capital bi mooy Ordon danañu xaasimatul mamlakati ordiniyati alxaasimiyati dégg nga zaltanatul oman min bilaadil arabi taqaxu fi junubi sarqiyal jasiratil arabia alal xaliijil arabia oman ixli bi fil junubi sarqi min bilaadil min bilaadil arabi alal xaliijil arabi wa baxrul hindu kon baatab tiyaam daal boo ko déggee mooy doj yi nga xam ne dañoo nekk ci jasiratul arab su ko defee ndox ndox wër leen ala sabilin misaal booy xool màkk am na min jibaali tihaama bu lay limal doj yi nga xam ne moom la ñuy wax doju Tihaama am na doj bu ñuy wax Jabalu Xeraa ca Màkka la nekk kon tur la rek ci turu Màkk yi moom Tihaam waaye nag fekk doj lañ ca namoo lu mel ni ne Jabalu Arafa kooku Makkatul Mukarrama ba tey la lu mel ni ñu ne Jabalu Abi Qubaysi kooku Makkatul Mukarrama la lu mel ni ñu ne Jabalu Safa Makkatul Mukarrama la lu mel ni Jabalul Marwa Makkatul Mukarrama lu mel ni ñu ne Jabalu Sabir Makkatul Mukarrama la lu mel ni min awdiyatu tihaamatu muy xuri mag yi maanaam xuri tihaam yi xuri tihaam yi dañu wax waadi dégg nga radd wi ak waadil xaqiix kooku wax wa yaqmoo xarbil madinati danañ wax waadi faatimatu waadi noxmaan waadi ibrahima su ko defee nag wa yaxtariqu makkata min ahlaha ila asfaliha boo tude waadi ibrahima rek muy xur surmaam ibrahima day labale makka la ko féetee kaw ba ci suuf danañ wax waadil adam wa fihi tajtamiu suyulu awdiyatul madinati kal haqiqi wa waadi dégg nga xannaatu batxaat batxaan yooyu yëpp ay xurlu yoo xam ne tabaarakallaa boo demee màkk donc fa fekk waaye daal li mën a am daal attihaam mooy maxnaa bi gën naa yaatu mboolem hijaas ba ci atraful yaman gox-goxaan yooyu nga xam ne sipil jasira lañ koy wax al arabiyati yëpp nga xam ne ndoxo ko wër suuf soo xam ne daal ndoxo ko wër waaye la soo xamee suuf su weex tàll la da gis Makka saari doj yoo xamee wala lu mel ni Hijaas saari doj yooyu nga xamee ne jasiira yi ndox da leen di wër da ngay fekk doj yooyu duñ faral di am xeer yu rëy maanaam doj weex fur lay doon bes tàq tabaarakallahu nga xamee ne ah, dëkk bi day faral di tàng lool tàng lool am na ñuy wax ne sax lu tax ñu tuddee ko Tiyaam ñu ne barab yooyu day faral di tàng lool lu rut kana buy taw buy taw daal tàngoor yi mën naa woyof waaye nag feeg taw rek tàngoor wi woyof waaye abul fidaaw nee ne wattihaam mansuubun ila tihaamati ndax wax ya tutlaqu ala makkatan baat bi daal buñ ko wax makk lañ ci namu wali saalika qiila li nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daan na wax ne tihaami li annahu minha wa tutlaqu ala al bilaadi allati bayna al hijaaz wa atraaf al yaman buñ ko wax daal baat bi turu makk la waaye mën naa wala bal ba ci jasiratul arab yépp lu mel ni diggante hijaaz réew ya ca nekk yépp ak ci ba ci wàllu yaman yéeg yépp moom lañ ca namu ñi ne lan moo tax wali anna nabi sallallahu alayhi wa sallam walada bi makkata su ko defee nag fa suma al makkiyu attihaamiyu maanaam barab ba na mel na bindoo yore ay montagne dégg nga xeet yooyu ñi ne barab boobu li tax mu juddoo fa moo tax màkk ñi tuddee ko attihaamiyu boo jëlee baatab tihaamu yi sax ñoom dañ ko firene ne mooy as suxruf rek mooy lu rafet te àllam màkk bi dafa rafet lu mel ni xàllu Hijaas bi ba ci yaman boo koy xool dafa rafet ndax barab la boo xam ne ndoxoo ko wër su ko defee nag jasire yi nekk ci biir dégg nga suuf su ñuy wax muy joor ay beeñ moo fa nekk suuf su nooy nepp su ko defee ndax ndox wër ko xam nga àll yooyu day faral di rafet moo tax nag comme yonent bi côté yi la juddoo ci Makka dégg nga te Makka mi ngi bokk ci Tiham te Tiham mi ngi bokk ci Yaman ba jàll Hijaas yëpp wàllu Yaman yëpp kooku Tiham lañ ko tuddee yonent yi li mu juddoo ci Makka nag moo tax nag ñu tuddee ko maanaam lu ñuy tuddee maanaam nëbbi yu Tiham mooy yonentu Makka. am nu ñu ne wasa mayta tihaamatun li saddati xaraha waru kuudi rihuha ñi ne li tax ñu tuddee ko tiyaam ñi ne barab yooyu day faral di tar ak tàngoor lool waaye ngelaw yi dal maanaam ngelaw li day dal waaye tàngoor yi dal day tar lool dégg nga waaye itam jaww ji day faral di soppeeku moo tax léeg bu ñu gisaan nit ku dëkkee foofu rek ñi ne kii de ah ngi bokk ci min tihaamati attihaam yi maanaam kii daal mi ngi bokk ci attihaam yi taggkat yu bari bari bari bari ñuy tagg yonent bi dañ koy dañ koy taggee turu tiyaam dégg nga alhamdulilah al alil ali sil majdi wal jalali wal ifdali suma salaatu wasalaamu saami ala nabil mustafa tihaami wa alil aimatil ataari maxtalafa leylu maanaari booy xool sëriñ bi moom bari na xasir yoo xam ne dana koy dàkkantalee tihaam waaye nag am na xadis boo xam ne li lay xamal ne tihaam daal ay turi doj la la yonent bi juddoo ci barab boobu moo tax ñu tuddee ko ko benn xadis boo xam ne yonent bi dafa wax xadis bu wér ne dégg nga sama xeet yowmal xiyaam danañu dikk indaale ay rafet rafet yu toll ni doj yi maanaam doj yi nekk ci jisiratul arab yëpp ak yi nekk màkk yi wi daal man ngeen ne da ko misaal maanaam toll na noonu waaye yi wi yàlla nangu na ko mooy seetee nañu doj yoon ndax doj yooyu dañuy wax tàll dañoo seet wicc da sama xeet yowmal xiyaam dana am indi ay rafet rafet yu toll ni doj yooyu su ko defee nag day mujj rek doon pand bu ñuy saaree. xadis boobu lu wér a la ndax dane wallaay da nga gis nit ñu jub dégg nga ci sama xeet daan jullee ko woor natt asaka kenn mënu leen ca fanaanoo naafale aa yaatuuna yawmal qiyaamati bi hasanaatin amsaali jibaali tihaamata baydaa'u fa yaj'aluhaa Allaahu habaa'an mansuuran nee na waaye nag dañuy ñëw fekk seen jëf yëpp don pënd bu ñuy saare xadis ba da caa tudd ne jibaalu tihaamatan baydaa'u kon ndax doj yooyu dañoo doon maanaam suuf soo xam ne dafa weex maanaam montagne yu weex tàll la dafa set moo tax mu misaale ne bi xasanaati am saali jibaali tihaamatan bayra dafa def tas bii ndax nit ki bu yàlla nangu ay jëfam dafa mel ni day weex tàll day set su ko defee doj yooyu nag dañoo weex tàll seet wicc mu ne nag yomal xiyaamee sama xëy am na ñoo xamee ne ni nga xamee ne doju tihaama yi niñ setee wicc te rafet noonu la ñu indaale ay rafet ay rafet rafet yu toll nii doju tihaama te setee ko su ko defee nag waaye lépp rek day mujj doon pënd boo xam ne dañ ko wisaaree lu tax yonent ti waxul ne jabalu tiyaama waaye waaye da koo jamoo ndax jibaal mooy jamoo mooy sibfu jasiratul arab yëpp mboolem doj yu nekk jasiratul arab rek kooku moom la ñuy wax tiyaamatu moo tax waxut jabalu jabalu tiyaama kon dañoo xam ne benn doj la rek ci màkk ndax màkk amul doj wu tudd tiyaama déedéet am nañ yeneen tur waaye nag dog yooyu yëpp ñi koy wax jasiratul arab doj yu nekk jasiratul arab yëpp moom lañ far tuddee rek tabaarakallaahu baatab tiyaama nga xam ne baatab tiyaama rek lañ ko far tuddee su ko defee nag ñi di ko dàkkantale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moom mooy yonentu yonentu tiyaama ndax moom la yàlla yónni ci gox boobu yépp lu mel ni yaman gis nga lim leen seedal seen gëm yàlla lu mel ni côté yooyu yëpp ba mu des najju ndax najju moom dafa waxoon ne foofu la waxoon ne mooy xarnub saydaane ndax benn bis daroon ñaan daroon ñaan yàlla yàlla nga barkel saam yàlla nga barkel saam yàlla nga barkel saam wax ay yoon. gaa yi defee ne xayra dafa fàtte naj jeeg yu mel noonu mooy xarnub seytaane fii lay seytaane di juddoo fii lay seytaane di fenkee te gis nga ko tabaarakallaa la waxoon yëpp gis nañ ko. am na nettali boo xam ne nettali nañ ko ñi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga sunu boroom téere ba nga xam ne moom la wàcce yoon ci yonent yàlla Musaa ca Tawraat dane ko woon annahu baaxisun nabiyan min tihaamatin min awlaadi Ismaayila fi aaxiri samaan wa amara Musaa ummutu an yuminu bihi isaa wa dalla alayhi bi alaamatin aqra fa ankara al yahudi nubuwatuhu fa qaala nabi sallallahu ana nabiyu attihaamiyu al abtahiyu al ummiyu ñi ne Moussa alayhi salaam téere bu yàlla wàccoon ci moom di tawraat sun borom da ko waxoon na ko am na ab yonentu boo xam ne danaa ko yónni mi ngi juddoo ci Tiham ci doomi Ismaayil yi ci lay bokk ci mujj jamono lay ñëw. ba ko defee Moussa digal xeetam wa na leen na ngeen ko gëm saa boo xamee ne yàlla yónni na ko mu waxal leen mandarga yëpp a bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu juddoo nag ca Màkka ci Tihaam su ko defee nag ñoom ñëpp ñi bokk weddi ko ñoom yahudi weddi ak nubuwaam yonent bi taxaw na leen ana nabiyu at tihaamiyu al abtahiyu al umiyu man maa yonentub Tihaam maay ko juddoo ci Tihaam loolu lam ci rek mooy maay maay kii juddoo ci mboolem jasiratul arab gox goxaan yooyu daal maa fi feeñ jasiratul arab doon koo xamee ne mooy ki mujj ci yonent yi waaye may al abta yu ndax maa ngi yaroo ca Makka ci xuru mak al abta yu waaye umu yi laa damaa judd ba noppi te jànguma dara waaye ba noppi ku bind du ma ko mën a liir waaye yonent la boo xam ne ba tey mooy ki ëpp ñëpp xam-xam. booy xool am na leetar boo xamee ne moom la waxoon abi du jaanata mu bind ko ba mu koy wax leetar ba dana ko haasa kitaabun min muhammadinil arabi attihaamiyu al abtahiyu almakkiyu alquraysiyu alhaasimiyu saaxibi taaji wal xaraawati wal qadib wa naaqati wal quraani wal qiblati ku ko am na leetar boo xam ne bi mu koy bindoo abi du jaanata danay waxal ne leetar bi mi ngi tukkee ci Muhammad mi nga xamee ne ci arab yi la bokk xam ga da ngay dégg ñu ne Muhammadinil arabi yi xam ga arab moom aw lang la léegi nag dafa bokk ci turu yonent bi xam nga yaa ngi dégg ñu ne Muhammadin at tihaami yi wala nëbbi yu tihaami yi fa mu juddoo ci gox boobu moo tudd yi yaa ngi dégg ñu ne al abtayu muhammadin al abtayu sëñ bi indoon na ko ci gannaaw loolu la muy tegtale mooy xuru makka ndax foofu la yaroo foofu la ko bàyyi abi taalib yaree woon ko yaa ngi dégg ñu ne muhammadun al makki yu makka turu makka la mais la fu ne turu madina yi ak turu makka yëpp dañoo jàll ko doon turu yonent bi ndax ñi lu tax ñu bëri tur yëpp ki fa rek dara jaam moo tax ñu tuddee madina tur yu bëri moo tax nga dégg ñaan muhammadul madaniya wala muhammadul makkiya wala lu mel ni xuraysin xuraysin ab giir la ab famille daal ci gàttal ñi far tuddee ko Muhammadinil Qurayshi wala ndax ci géej goog ci lañ ko tànn jëlee ko ci Qurayshi mu ñëw ci Banu Haasim moo tax ñu naan Muhammadinil Haasimi lu mel ni ñu ne Muhammadin saahibu taaji wala hirawati wala harawati yu mel noonu wala xëddi bi ngir dokk ba mu daan wala yet ba mu daan téye wala naaga gam daan war wala Muhammadinil Qur'an ndax dañu wàcce woon ci moom xib alquran wala Muhammadinil xibla ndax moom lañ jox xibla gi gën ci mboolem xibla yu mel noonu kon daal kooku mooy attihaam kooku mooy mboolem jësritul arab doj ya nga fa gis muy doj yu weex ba noppi nag te ndox wër leen moom la ñuy tuddee at tihaami yu la muy tegtale yonent baa fu juddoo te tihaami yu mi ngi bokk ci yaman te màkk tam foofu la bokk moo tax ñu far tuddee ko ko. kon daal max naa ismu tiyaam daal boo ko doon firi rek moo tekki lu rafet rek fam juddoo mooy jasiratul arab waaye tur la ci turu màkk yi kon max naa ismu tiyaam daal nisbatun ila tiyaamatin wax yal ardul al muhaasiyatu bil bahril ahmar min as-sarq mooy suuf si nga xam ne suuf si joor la beñ boo xam ne suuf su suuf su xam ne da ngay gis joor boo xam ne day xonq su ko defee nag muy sotteeku ci ndoxam géej gi di tëbbuwante géej gi moom la ñuy tuddee at tihaama barab yooyu yëpp at tihaama rek lañ koy tuddee tabaarakallahu booy xool ba ba tey hadis boo xam ne ki ko nettali mooy maymonatu bintul haris nee na dañ koo xëddiyaaloon mbët bam deferee bam ko deferee ba noppi am ñaari waay ju bokk ci najat naj ji ñëwal ko su ko defee nag mu jox leen ko may leen ko ngir ñu jëfandikoo ko yonent bi na tëll daa di ñëw ñaari waay yooyu daa yaatal yonent bi ngir bëgg mu lekk ci mbëtt mi bañ ko koy jox yonent bi ne leen lii lan la ñu ne ko mbëtt yonent bi daal di téye loxoom ñaari waaye ñu mit daal di téye seen nangu ñee lekk yonent bi na leen lekk leen ko ndax fa innakum ahlu najdi taakuluunaha te wa inna ahlu tihaama na'afaha maanaam yéen daal yéen nga bokk ci waa naj bi bu la neexee mën ngeen lekk waaye ñun nag ci tihaama lañ bokk mooy ci siful jasiratil arab te mooy mak rek. kon daal tabaarakallahu buñ ne suxoolu tihaama daal mooy ardun mumtadatu mustaqimatul sati kooku mooy saxlatu mooy bu karam li mi lool ma u suuf la soo xam mel ni beeñ su ko defee ndox mi yenu ko kon nag boo déggee ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo di at tihaamiyu te tihaamiyu ismun la min asmaa'i makkatul mukarram fa makka nekk suuf su noonu la mel suuf si dafa tàll dafa nooy su ko defee am montagne yu fa nekk nekk montagne yu weex tàll su ko defee nag ba Hijaas boo jàllee ci Tihaam la bokk ba atraaful Yaman foofu yëpp noonu la bindoo jasiratul arab yëpp noonu la bindoo moo tax nga dégg yonent bi wax ci hadis ba ne sama xeet yowmal qiyaam dana am koo xamee ne jëf ju baax ju ne jëf na ko cëru na bam toll ni doju Tihaama ci weexaay doji Tihaama yi nu ñu weexee tàll ak suuf sa num leere nañ weex tàll jëfam yi noonu lay mel waaye nag tabaarakallaahu man ngeen ne du ko jëriñ dara rek rek lépp rek day mujj parta parta ameloon na ñu bëri àq. kon nag yow sunu borom allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayidina ci kaw sunu sang bi. wa mawlaana tey sunu kilifa muhammad turam di muhammad. at tihaamiyu mooy makka. suuf su makka si moo mel noonu kenn du yónentu. Quraysin la bokk ñu ne muhammadini Quraysin langue yi ñu wàcc ci arab la ñu ne muhammadinil arabiyu madina la dem gàddeefe ñu ne muhammadul madaniya xurwañ ka yéré ñu ne muhammadul abtahiya kenn du moom kon suuf su màkk sa na mel tàlli lool su ko defee suuf si nooy lool côté boobu ba jaas fépp la ko wër rek yépp xam ngeen ne tabaarakallaahu ndoxu ko yenu su ko defee moo tax ñuy wax baxrul ahmar ndax suuf sa day royaat di sotteeku ci géej ga di dugg géej ga loolu kon moo di tiyaam tur la rek ci turu màkk yi yonent baa fi juddoo suuf sa moo bindoo noonu jàngoon nañ ci way njëkk ña laata yonent bi di ñëw ñu ne yonent bi ci jasiratul arab ci lay feeñ moo tax suuf soof nag lañ tuddee tiyaam at tiyaam ya mooy kojug màkka wasallim yàlla nga sallam alayhi ci moom wala ali ak ñoo ñëw sama bi ak saabaam yëpp wamu yàlla nga faree jëmee asan bi mboolem sama bakkaar bi jaay ci darja yonent bi alkamali darjaam ji raaji mat moo tax mu ne daal yow sunu boroom noo ngi lay ñaan yàlla ngay sax dàkk di julli ci yonent bii di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad mooy kojug Màkka daal dégg nga ismun la min asmaa yi Màkkatul mukaram allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan. salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayidna ci kaw sunu sang bi wa mawlaana tey sunu kilifa. muhammadin turam di muhammad. ataqliit mooy aji womatal léppam yàlla jox ko jooyal ko ko. wa sallim yàlla nga salaamu alayhi ci moom wa ala ali yàlla na nga julli ci waa këram sama bi ak saabam yépp waj nub nii yàlla nag ma sëril yàlla nag ma teetal bi jaay ci dara jàmm al ifraat ëppal wa tafriit ak mankil mu ne sun borom yàlla na nga julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad Muhammad mooy bokk na ci at taxliit rek mooy at taslim mooy koo xam ne dafa womatal léppam rek jox ko sunu borom dégg nga ñëw na ci kutubu Roomi yi tabaarakallaahu yàlla nga sëlmal ci moom. yàlla nga julli ci waa këram ak saabaam yi sërmal ci ñoom ah waaye nag yàlla nga musal ci lu ñuy wax ak tafrit mooy benn nga sàgganee sa jëf yëpp nga sànq ko kooku mooy tafrit waxoon naa ko ifraat nag mooy nga jéggi dayu ci jëf ya yàlla nag ma teelal ci barke bi yonent bi dégg nga lu ñuy tuddee ifraat ak tafrit ndax maamoon tax taxlit la mooy ku jël léppam jébbal ko yàlla mostu ëppal tabaarakallaahu waaye mostu manquil ci ay jaamu yàllaam lépp da koo joxoon suñu borom tabaaraka tala doonoon kii digg doomi ci mbir yëpp allahumma yow sunu borom noo ngi la ñaan salli yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang yi ci kaw sunu sang bi wa mawlana ti suñu mooy muhammad salaatan julli goo xam ne tam woo danga faree bi ay ci julli googu kullama lépp loo xam ne sa dara gongee ko mi nii ci man mi maa yu xaalifi ci loo xam ne dafa wuuteeg ridaak sa ngërëm min waxtu wilaadati lu ko tàmbalee ci waxtu wu ma juddu ilaa faati ba kere sama faatu wa na nga far ani musarima tabiaati sama toppi nu ñaaw yëpp sama bor yi maam yëpp lépp loo xam ne wajaba war na ali sama kaw lakka ma amel la ko ci ay xaq aw li xalqika wala ma amel ko ci ay xaq te mu gàllu sama kaw ma amel ko ci ay xaq aw li xalqa ñeel li nga xam ne mooy say mbindeef mu ne na nga far yëpp ijmaalan ci mbëmbëstal gërë rek far yëpp wa tafsilan ak ci teqantal wax fi ni yàlla nag ma fegalee bi jaay ci darja yonent bi feex ma maa may jëf loo xam ne laa laatu yi boo bëggloo ma ko wala tar daaw te gërëm loo ko ci man xataa alxaaka ba ki rek may dajeeg yow raajiyan mbir moom may aji gërëm la mardiyan dégg nga mbir ma ma doon gërëm fa yow amiin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bi defi wa sallam yàlla nga salma xam ne tusalim bi da nga ma musal faw waaye wa tansi bu da nga musale bii ci barkeb yonent sama saayir wa baatini sama baatin yëpp min lansa bi saa bi ak ëllëg yomal xaa ñi may réglé wali saa bi ak réglé ka fii dunya fii ci duna wala xarita ak ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bi defi tafsir xam nga mbir mi dem waaye da koy teqantal bor bi tabaarka lu mel ni tey boo doon tuddee bor bor boo xam ne tafsil la masalan koo leb rek bind ko kayit boo amee xaalis nag commencé nag di xool kan kan nga leb bor su ko defee na ngay fay kenn par kenn fay di fay kenn par kenn ngir bañ a jaawale. bëgg misaal ci yàlla mooy dafa am lu ñuy wax ijmal ijmal ci yàlla mooy koo xam ne day gërëg def lépp bu dee far bor yi da koy far ca sansa bu ko neexee daf ko tafsil di far benn par benn waaye bu ko neexee def ba mbëstal mu ne nag yàlla yàlla ma fegal ci darja yonent bi may jëf loo may def loo xam ne yow bëggoo ko te gërëmoo ko mu ne nag loolu nag ma ko fegal ba ki rek ba may dajeeg yow daal naa doon koo xamee ne dama lay gërëm ci biir activité yow it nga gërëm ma yàlla nga nangu ñaan yow yàlla yu borom bi defi yàlla nga sëlmal ci yonent bi ci waa këram ak saabaam bi sëlmal ci ñoom sëlmal goo xam ne ci nga may musalee faw waaye ci ngay musalee sama saayir ci barkeb yonent bi ak sama baatin ci lu ñuy tuddee mbugal moo xam ci àddina ak àllaaxira wala lu ñuy tuddee xisaab ci àddina ak àllaaxira yow yàlla yàlla nga nangu ñaan yow mi borom bi fi. moo tax mu ne allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan salli yàlla na nga sax dàkk di julli. ala sayidina ci kaw sunu sang bi la mawlaana tey sunu kilifa. muhammadin turam mooy muhammad salaatan julli googu xamee ne tam woo da nga faree bi haa ci bug julli googu. kullama lépp loo xamee ne sadara feeñ na sadara gongeeku na. mooy bàyyeekoo ne mi nii ci man mi maata mooy loo xamee ne yu xaalifu dafa wuuteeg ridaak sa ngërëm lépp lu ma mën a def daal te gërëmoo ko lépp ci barkeb salaatu gi far ko ñu ne ko ndax jamono jii la mu ne déedéet min waxtu wilaadati li ko tàmbalee ki rek ba ma juddoo ilaa faati ba kere samay faatu lépp lu ma mës a def te yàlla neexul la rek ci barkeb salaatu gi far ko ba mu set wicc ma tàggoog moom waaye wa kafir yàlla na nga far andi mu sëri ma tabiaati sama toppin ñaaw lépp loo xam ne wane naa ne dama ko doon topp yonent bi wala ma la koy topp ak ku mën a doon rek waaye jeex ju ñaawa ngi ca yëpp far ko moo xam ay ndistal laaj yëpp far ko jégal ma ko wudd yoon yi ak sama bor yi dox sama diggante ak yow yëpp yàlla sippi ko far ko ba mu set wicc wa kulluma ak lépp loo xam ne wajaba war naa alee sama kaw lakka ñeel la muy diggam ak yàlla lépp lu fi nekk ci ay bor rek mu ne yàlla far ko aw li xalqika wala mu ñeel sa mbindeef su ko defee nag mbindeef yëpp dugg lépp loo xam ne yoroon na ko mbindeef rek ñaan na yàlla mu far ko mu ne gërgëra def ko benn yoon mooy mbëmbëstal wa tafsilan ak teqale mooy di ko def benn par benn ba yëpp faru wax fi ne yàlla ma fegalee bi jaay ci darja yonent bi féex la maa may jëf loo xamee ne laa tuhiboo bëggoo ma jëf ko wala tar daw te gërëmoo ma ji ko jëf nag ma ko fegal nag xataa alqaaka ba kerek may dajeeg yow raadiyan di dila aji gërëm yow sunu borom mardiyan don koo xamee ne ku ñu gërëm la ci biir ak ci biti. yal nanga na nga nangu ñaan yaa rabal xaalamin yàlla mi borom bi ndefi wasalim yàlla nga sëlmal alayhi ci yonent bi wa ala ali yàlla nga julli ci waa këram sëlmal ci ñoom wasama bi ak saabaam yëpp salaaman sëlmal goo tusulimi da musal ba faw wa tansimu da nga musalee faw bii ci barke bi yonent bi saahiri sama saahir wa baatini ak sama baatin sama biir ak sama biti min la xasaab ci lépp luy mbugal wala xisaab ak xisaab yëpp da nga ko musalee fii dunya fii ci aduna wala axirata ak àllaaxira amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yàlla mi borom bi ne fi raadiyan mooy lépp loo xamee ne xeetu yoon la maanaam ba bu muy dajeeg yàlla daal mooy raadiyan mu gërëm yàlla ci luko ko yàlla jox ci xeetu yool mardiyan nag mooy jëf ya nga xamee ne jëfoon na ko muy xeeti jëf yu baax yépp tabaarakallaahu kooku mooy mardiyan moom nga jàng irji'a ila rabbika raadiyatan mardiyatan bu ñu ne irji'a ila rabbika mooy raadiyatan anhu bima tana layni min sawabil sawaabil jasil fay yi nga xamee ne yàlla defal na la ko nga bëgg ci lool kontaan ci lool mardiyatan nag mooy hendu subhanahu bima kaana laka min amalin salin li nga fi nekkoon ci jëf ju baax moo tax kon mu ñaan suñu borom na ko ba keroog may dajee yow daal naa doon raadiyan maanaam koo xam ne li ko yàlla di jox yëpp ay yoon lay nekk ay ak yiw waaye mardiyan nag buñ demee fa yàlla léppam ay jëf ju baax lu ko yàlla defee la moo tax mu ne yàlla nga ñaan yàlla muy borom bi ne fi yàlla nga sëlmal ci bi julli ci waa këram ak saabaam ci ñoom sëlmal koo man da nga musalee faw waaye da nga ma musalee ci barkeb yonent bi da nga musal sama saayir ak sama baatin ci bépp mbugal moo xam ne adduna la nek wala ëllëg yamal xiyaam wala bépp xisaab boo xam ne adduna la nekk wala ëllëg yamal xiyaam wala ëllëg yamal xiyaam yàlla na nga nangu ñaan yow yàlla muy borom bi ndefi kon bunt boobu jeex na. kon bunt bi juróom benn tur rek la fi indi bokk na ci buntu yi gën a néew ci xasida gi mu jël xarfu saa i musallasa mu ne saa i buntu bi mooy xarfu saa al musallasati bada buñ def ñetti tomb ci kaw loolu mooy musallas mooy ñetti tomb buñ def ci kaw moo ta mu tudd musallas bismillah yi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon bépp mindeef ci àdduna arrahiimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira inna laaha naka yàlla sa dëgg-dëgg wa malaayikatoo ak malaakaam yi yusaloona danañu sax dàkk di julli ala nabi ca kañu solo ka yaa a lazina ee yéen gaa ñi nga xam ne amunoo gëm ngeen alquran ak yonent biñ ko wàcc saloo na ngeen julli ali ci yonent bi wa salimoo te ngeen sëlmal ci moom tasliman ak sëlmal la béyk wuyu naa la ci gannaaw ak woote rabbi yoo son borom mi nga xamee ne wasax dayka texeeg aduna ak alaxira wal xayru ak yiw yi kuloo yëpp biyee dayka nekk nañ ci sa kàttan abdu ko ma doon sab jaam abdahin fu bu ñàkk solo sama tur nag muhammad mooy muhammad ibnu muhammad di doomi muhammad benn yee dayka maa ngi tàllal sama ñaari loxo ci sa kanam di la toroxlul musal di aji julli ala miftaahi xayrika ci yonent bi nga xam ne mooy sa caabi gu yiw adduna ak alaxira muhammadin kooku turam mooy muhammad sala yàlla nga julli ala yow yàlla taala yow mi aji kaw ali ci maamoon moomee wa salama tëgg sëlmal ci moom wasilati mooy sama wasila ilayka jëm ci yow biyaasal kitaab ci bii téere mu ne maa ngi tàmbalee ci tur suñu borom yàlla muy xéewlaa kon ñëpp ci adduna tey aji yaram ku ko soob ci alaxira yàlla nee na man ak sama malaaka noo ngi julli ci bi kon nag yéen ñi gëm na ngeen di julli ci yonent bi di sëlmal ci yonent bi faw yow sama borom kon nag sa woote boobu wuy naa la ci ndax yow kat texe ëdduna àllaaxira ak yiw yëpp nekk nañ ci sa kattan su ko defee man jaam laa bu feebul ñàkk solo lool waaye nag sa tur moom mooy Muhammad di doom ci Muhammad kon nag maa ngi toroxlu ci sa kanam su ko defee nag di julli ci yonent bi nga xam ne mbooleem saw yiw yi nekk ci ëdduna àllaaxira yëpp caabi ja koy tijji kooku mooy yonent bi. moy Muhammad yàlla na nga jullee yàlla yow mi aji kawe ci moom mooy sunu wasila jëm ci yow. maanaam daal mooy wasila bi dox suñu diggante ak yàlla donte ci yàlla lañ jëm waaye ci moom la ñuy jaaral ci biir téere di muqaddimatul xidma kon gis nga buntu bu mu tijji rek dana tudd baatab xaasal kitaab kon xasida gu màgg la mu ne kon nag fa yuqulu wax naa ne allahuma yow sunu borom ya salli yàlla na nga sax dàkk di julli ala sayid naa ci kaw sunu sang bi o mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad saaniya ni mooy aji ñaareel ñaar ña mooy ki nekkatoon na Abu Bakrin Sadiq ca biir Kuntuma ba nga xamee ne waa màkk yi ñu ngi leen di rëbb ngir bëgg leen di faat ca daaru Nadwa dajale seen pexe kariye seen pexe ba bëgg koo rey ñi guddi nag nañ dem rey ko buy julli ci fajar rek kenn ku nekk rek jël aw jaasi rek ñi teggi dox ga mu yem fi ndax daal moom daal sonal nañu lool saa bu yeewoo rek naan ñu yàllaa ma yónni yàllaa ñu yónni dañ koy rey léegi kooku mooy saani is na ni dugg gi mu duggoon ci xuntuma nag nekk fa ta alquran moo koy wax is yaqulu li saahibi laa taxsani inna laa maxana xam nga Abubakrin ko amoon ñeewantu la am yërmande lool ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nag biñ génnee ñoom ñaari ànd ci bisu ëltina booba ñi ngi gàddaay nag di jëm Madina ba ñëwee nag tabaarakallaahu ba làqatu ci xunt mi ci coob rek yàlla gis nga bu mu ci saari Sëñ Tuubaa nettali na ko nettali ko ci xasida googu Jasbul Xulub ah koo xamee ne da ko koo dàq di ko séen nga ñëw ba ci am xunt ndeke mi ngi ci biir xunt bi waaye yàlla def na ci lu ñuy wax mujisaat mooy picc ci ci gàttal rek pittax nen na fa nga gis lënd gi ràbb ci ba wër ba wër ba wër ba wër xunt nga xam ne ku ñëw sax da ngay defe ne fii moom ay xat pittax ñu ngi fiy nen te déedéet keroog la fi pittax doog a nen loolu keemaanu yàlla la. yéefiri màkk yi nag ñëw nañ ba ci xunt yi ba tiim ko nga xam na boobu maa ngi leen di seen Abubakar nee na boobu maa ngi leen di seen yi. waaye ñoom nag seen ñàkk xel ñi ñëw ne ah fii moom kenn nekku fi parce que fii pitax mi su fekkoon ne dugg nañ fi pitax du fi mën a nen te pitax mi nen na ba tàgg fi lënd lënd gi mi ngi lënd xunt bi ñoom nag ñi ak seen ndof yi ga ñu dellu génnaat àll boobu yëpp dem ñi bi màkk xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla sooy na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku am daraja la ku yàlla ku yàlla yàgg teral la yàlla masul dëñ di teral yonent bi waxoon naa leen bala moo judd rek la ko commencé teral waxuma laa nag bi mu ñëwee loolu yëpp ci biir xunt bi Aboubacry nag mu ngi mel ni ku tiit ndax defe na ne waa màkk yi danañ leen gis waaye moom la mu doon tiit yeeg leen la cofeelam ci yonente moom yonente bi rek la bëggoon a sowee moom daal nan la yonente di def taal ba waa màkk yi du ñu gis tey di ñu faagaagal jàq lool di lox ci biir xunt mi moom nga digal Alxuraan ne isi ko li saabi laa tax si ina laa maxana yonentu ci boppam moo àndandooram bi di Aboubacrin na ko ah bul jàq yàlla mi ngi ànd ak ñun fa ansalallahu sakinatahu alayhi wa ayadahu yàlla wàcc ci seen xol yi ak dal seen xol yi mujj féex dégg nga am nañ fa xuntuma ñi na ñetti fan waaye alaakulaa loolu yëpp du pas-pas am nañ fa daal ay fan dellu génnaat fa dem Madina bañee gàddaay la daal kooku nag dafa bokk ci tur yi moo tax ma la yónentu tur wu ne tuddee nañ ko ko fu mu mos a nekk rek tu nañ ko aw turam moom laa la wax fu mu mos a nekk rek tuddee nañ ko aw turam gis nga saani isnayni ab xunt rek la duggoon ab xunt ñi ne mooy saani isnayni muhammadin saani isnayni kon muhammadin kooku turam mooy muhammad saani isnayni mooy aji ñaareel ñaar ñaar max naa aji ñaareel ñaar ñoom ñaar rek fa nekk kanaa yàlla leen ñetteel Muhammad fa nekk ak yàlla Abubakar ñetteel leen waaye yonent bi mooy aji ñaareel ñaar ña ñoom ñaar rek fa nekk max naa keneen nekku fa wasallim yàlla nga salma ali ci moom waala ali julil ci waa këram wa sama bi ak saabaam yëpp wax di yàlla nga fajee bi jaay yi ci darajaam xan nii musari ma kulluma lépp loo xam ne xan lee gàlloon naa ko sama kaw min xaqin ta mu doon ay xaq lépp yàlla na ko far tabarakallahu fii daarin adduna ak alaxira mu ne yow borom yàlla na julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad Muhammad moomee moom la ñu woowee saani isnayni buñ ko waxee rek mooy ay fil qaari waxumal Moustapha wa Siddiqu kooku mooy saani isnayni mooy xuntu ma nga xam ne ñoom ñaar dong ñoo fa nekkoon kanaa yàlla rek yàlla rek moo leen moo fa nekk ñettal leen. waaye nag ñoom ñaar dong fa nekk kenn ci saaba yi nekkut fa kenn ci jabootu Abubakar wala yonent bi nekkut fa kenn ci waa Màkki nekkut fa kon kooku mooy saani isnayni mu ne moom moom di Muhammad di saani isnayni nag ah yàlla na nga julli ci moom julli ci waa këram ak saabaam yi sëlmal ci ñoom waaye nag bépp xàq boo ne dafa gàll sama kaw dégg nga yàlla na ma ko fayal waq di mooy mooy loo xam ne dañ la koy fayal nga xam ne yow masalan leb nga ay bor waaye amoo loo ko fayee nga gis ku la ko mën a fayal su ko defee kooku mën laa fayal yëpp ndax wax naa la néew bu gaañu rek su fekkee dafa yóbbaale ay bor te amutoon xaalis bi mu ko fayee ah dana am ñu taxaw ne man de mën naa ko fayal borom ndax yóbbaale bor moom wóorut yàlla na ci yàlla musal kon waq di yàlla na nga fayee bi jaay ci darja yonent bi an yi mu sëri ma ndax lépp lu gàlloon ci ci sa kaw ci ay bor suñ ko fayee gàllatu lu muy tekki mooy wàcc na la moo tax wax di yàlla na nga fayee bi jaay ci darja yonent bi an yi mu sëri ma ku lu ma lépp loo xam ne alee dafa gàll sama kaw mi naaqin càq fii daarin ëdduna ko alaxira bi pàq boo xam ne ci ëdduna wala alaxira dañ ma koy toppee yàlla ci barke bi yonent bi na ma ko fayal mu wàcc ma sëri ma allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga sax dàkk di julli. ala sayidina ci kaw sunu sang bi o mawlaana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy muhammad. asimaal mooy aji xettalee ji. wasalim yàlla nga salmal ali ci moom waa daali ak ñun ña. wasama bi ak sahabaam yëpp. wax fi ni yàlla na ma fegalee. bi jaay ci darja yonent bi jumlatal ahwaali mboolem xeeti ci tàng yi. mun yow sunu borom noo ngi lay ñaan yàlla nga julli ci yonent bi di sunu sang bi. di sunu kilifa turam di muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy kan asimaal asimaal moom buñ ko waxee rek mooy ëy al muqiisu dañ koy fi dañ koy firee mooy al malja'u maanaam nit koo xam ne daal ku mat wiid waay la nga xam ne boo wiidee ci moom daal mu xettali la boo demee ci asarqaan yi noonu la ko firee sax nee asimal asimaal buñ ko waxee mooy al muqiisu mooy koo xam ne daal problème boo mën a am bu dee njirim nga bu dee miskin nga bu dee faqir nga yow daal fexel ba ñëw ci yonent bi wala nga am loo koy jàmbat rek da ngaa yegseegut ci moom kooku mooy asimaal mu ne yàlla nga sëlmal ci moom julli ci waa këram ak saabaam yëpp yàlla na ma fegle ci darjaam mboolem tiitaange aduna yi wala barsax wala yamal xiyam booy xool abi taalib mii ma la doon wax eh, nga xam ne tagg na yonent bi def na ay xasida di ci tagg yonent bi salaay salaam te dugutoon ci lislaam moo yar yonent bi waxoon ko am na xasida gum koy taggee dana yonentu wa wa abyada yustaxtal xamaamu bi wàccihi simaalul yataama ismatun lil aramili mu ne yonentu salaay salaam eh, simaalul yataama la maanaam mooy kiy xettali njirim yi maanaam njirim mooy koo xamee ne njirim ci nit woyu juróom bu góor dafa wàcc liggéey mooy faatu na te matagul mu kalaf mu ne kooku bu ñëwee ci bi moo koy xettali wéeduwaay la ci moom maanaam malja'u la ci moom waaye yasmatun lil aramili ñi a ñi aajoo te doon ay miskin amuñ dara yonent bi mooy seen kaaraange mooy seen muccuwaay kon abi taalib tagg rek xasida googu tagg wu neex la wa ab yada yustasqal xamaamu bi wàcci simaalul yatama asmatun lil aramilin kon simaal daal tabaarakallaahu bàyyi tax bàyyi taxam jooju di abi taalib nga xam ne moo ko yor daan na ko ko taggee moom daal la muy tekki ci dëgg-dëgg rek mooy al muqisu mooy al maljaw mooy koo xamee ne wéeduwaay dëgg mooy yonent bi boo wéedee ci moom rek ak looy man di tiit di ko ragal rek boo wéedee ci moom dégg nga mën a mucc nga ci tiitaange yëpp moo tax gis nga sëriñ bu ne wafti bi jaay jumlatul ahwaali na waxoon naa la sëriñ bi ni may ñaan rek ci ngay xamee baat yi li muy firi te bu la neexee sax doo sukkandiku ci yeneen max naa kon nag allahumma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sali yàlla nga sax dàkk di julli ala sayyidina ci kaw sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam mooy Muhammad alsimali mooy aji xettale ji mooy ku mat wiiduwaay bu dee njirim yi ak mboolem miskin yëpp mooy seen xettaluwaay mooy seen wiiduwaay yàlla na nga sëlmal ali ci moom wa salim yàlla na nga sëlmal ali ci moom wa ala ali ak ñoña wa sama bi ak saabaam yëpp wax fi ni na ma fegalee bi jaay ci darajaam jumlatul ahwaali mboolem xeeti tiitaange yi moo tabaarakallaahu ak barsaq ëllëg yawmal qiyaam def naa jàng ca taxmis mu ne man nar tëjee awnoo fi laali wa niqi mooy lii rek nag nee na fu ma tiitee adduna ak alaxira wala ma mm, mm, dégg nga lu ñuy wax tarukum bugal muy niq niqam wala tiitaange bis penc ma yaakaaruma ci kenn mu dimbal ma ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax fii bi mu tuddee baatu simal mu daal di wax nag suñu borom mu fegal ko ci barke bi yonent bi lépp lu ñuy tuddee xeeti tiitaange ak tiitaange bu mu mën a doon rek ci saayir ak ci baatin suñu borom kon yàlla nañu ko yàlla fayal rek